salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tele le dimanche 31 octobre 2021 ñu fas yéene def nag suñu dernier épisode fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor euh, ci waxtaan yi nga xamante ni ñu ngi doon ko amal ci wàllum gëstu maanaam recherche scientifique ak technologie ginnaaw bi ñoo xamante ni dalal nañ euh, ci suñu premier épisode bi ki ñuy wax madame Diop nekk directrice laboratoire ELI3 ñu dalal aussi docteur Youssou Dieng euh, ci épisode bii passé waxtaan ak moom ci projet yi nga xamante ni ci la nekk ci université bi ak euh, mooy projet yi ñuy def ci frontière bi entre Sénégal Gambie euh, comment dirais-je Guinée-Bissau tey nag dañuy dalal doctorants yi ci boppam fas yéene waxtaan ak ñoom ci thèse yi nga xamante ni thèse de doctorat yi nga xamante ni ñu ngi koy def alors ci lan lañ def seen recherche ban jafe-jafe la ñuy jéem a régler est-ce que tey ci recherche yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy def nit ñaa ngi koy jëfandikoo ci entreprise yi wala état bi wala yu demee noonu mais aussi naka la ñuy dundee seen année yi nga xamante ni année de thèse yi nga xamante def nañ ko foofu ci université bi donc tey euh, docteurs yi nga xamante ni ñoom la ñuy dalal euh, te ñu nekk fii nii génnee fii ci université Assane Seck ah, ki ci njëkk mooy Kamir Malak alors monsieur Malak yaax nañu la. maa ngi lay delloo ziar Ibrahima Diago maa di nuyu aussi euh, sama collègue bi di Sidé Dieng comme ñun ñaar ñoo partagé plateau yi ça fait l'occasion tamit mais profite occasion bi nuyu yeneen doctorants yi ak suñu enseignants yi nga xam dañu sonn ci ñun ñu yegg si fii ak sama encadre ñaari encadreur yi. Mhm. mooy docteur Ibrahima Diop. Mhm. ak professeur Youssou Dieng. Hmm, ok ah non boo dinañ la mere. <laughs> Euh, <laughs> alors suñu deuxième euh, invité bi nag moom tamit docteur la fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor moo ngi tudd Sidia Dieng alors monsieur Sidia Dieng jaar nañ la. Ibrahima ñi ngi lay fay ñu ngi lay delloo ziar ba di la fay. Mhm. ñu ngi kontaan bu baax ci ci euh, ci invitation bi nga bi nga ñu amal ñu ngi nuyu commencé comme sama collègue Kamil Malak di ko di ko nuyu moom tamit bu baax. di bokk di kontaan bokk a moom plateau bi mais aussi di nuyu euh, suñu encadreur donc de thèse donc muy le professeur Youssouf Faye voilà ñu ngi koy nuy di nuyuwaale aussi la l'ensemble n'est-ce pas des des enseignants chercheurs du laboratoire ELI 3 ainsi que du département informatique macha allah macha allah merci beaucoup alors euh, franchement maa ngi leen di remercier yéen aussi bu baax ci euh, li ngeen accepté ñëw ci invitation bi ñu fas yéene waxtaan ci liggéey yi nga xamante ni def ngeen ko te euh, ñàkkul ne. Euh, am na nit ñoo xamante ni ñu bëri ñoo xam ne ñu nekk Sénégal mu jeunesse bi wala sax mu nekk seen yeneen moromu doctorant yi nekk yenn université xam duñ xam à chaque fois ci li nga xamante ni moom la doctorant yi nekk yeneen université di liggéey donc tey nag loolu moo tax mu def épisode bi pour fësal seen liggéey ngeen expliquer ñu lan ngeen liggéey ñu waxtaan ci loolu yëpp d'accord. Hmm. donc ñu dem directement ci suñu épisode tey bi maanaam parlons de votre thèse de doctorat ak suñu ñaari docteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk. Camille ak Sidia alors ci euh, saison 7 bi nga xamante ni génn nañ ko euh, non attention ci saison 7 bi nga xamante ni moom la ñuy def nii épisode yi nga xamante ni moom lañ nar a def yépp dañuy koy jagleel gëstu ci wàllum xarala yu bees yi suñu waxee gëstu nag maanaam recherche ku nekk mën na ko def wante su fekkee da nga nekk ci milieu université am na yoon ba nga xamante ni moom nga war a jaar pour mën a def euh, euh, recherche maanaam inscrire euh, pour mun a def sa doctorat alors laaj bi nga xamante ni moom laa bëgg noonu njëkk laaj ci yéen ñaar ñëpp maanaam mooy maanaam lan moo nekk seen jaar-jaar maanaam seen parcours avant sax ngeen di yegsi ci doctorat Sidiya. waaw ah, jërëjëf Ibrahim donc ñun suñu parcours. Euh, ginnaaw bi nga xamee ne am nañu suñu bac scientifique mhm. en deux mille onze dañu orienté ci euh, ci ci université bu ñuy wax université de Thiès voilà fa ñu jaar ñun particulièrement si euh, am ko licence en génie informatique mhm. en 2013 ñu bañ ko amee ñu ñu def ñu déposé candidature fii si université Assane Seck ñu jël ñu fi en master génie logiciel donc euh, ginnaaw loolu ñu inscrire am suñu master en génie logiciel en deux mille dix mhm. euh, ginnaaw loolu nag ñu inscrire ci thèse bi en deux mille dix neuf donc deux fuñ dix neuf ñu nii ñu ngi ci euh, ñu ngi suñu année de de thèse. ok macha allah ça c'est parfait alors Kamir. waaw man ma ñëw bokk presque jaar-jaar. Mhm. mais daal di bokkuñu ci même jaaruñu ci même université yi. mais avant loolu damay def benn euh, benn correctif bu ndaw. Mm-hmm. Euh, du ñu ay docteur pour l'instant parce que sudee guñu suñu thèse. Ah, mais instant yi doctorant lañu. ay doctorant ngeen quoi. ok ok ay doctorant lañu waaw mais bu ñu suñu thèse dañuy am titre docteur. docteur a ngi en cours sa thèse. loolu Euh, man fii laa jàngee euh, fii nii Ziguinchor ma am sama bac S en 2009 après ci laa dugg université bu Ziguinchor bi fii nii parce que kii moo amoon fii nii MPCI muy maths physique chimie informatique mais en troisième année da ngay spécialisé wu ci laa spécialisé wu en informatique. ok donc ma am sama licence en 2014. Mhm. ci laa inscrit du master. maa ngi soutenir sama master en euh, master génocière maa ngi soutenir sama master en et ci laa inscrire en ok ok ok ça c'est parfait alors ci nga inscrire en thèse ba léegi yéen a ngi ci kawam ci thèse bi voilà di ko di avancer ndànk-ndànk alors euh, c'est vrai que xam nañ ne ñu ñëpp xam nañ ne thèse yombul dafa laaj affaire yu bari c'est-à-dire euh, coono bi. recherche yi c'est c'est c'est hyper c'est hyper dafa métti quoi métti na trop alors lan moo leen motiver yéen tey ba ngeen continuer seen jàng def doctorat parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni suñ paree master rek comme sama genre gi waaw dañ naan dañ dem uti xaalis wala euh, euh, di def doctorat Sidia. voilà donc euh, jërëjëf mhm. donc ñun lu ñu motiver. particulièrement man donc dama yàgg euh, ba ma nekkee étudiant mhm. euh, dama daan jàng di jàngale waale donc cours yooyu ñu daan def mhm. ci ci école yi euh, di jàng di jàngale waale donc moo ñu permettre te ku wax jàng xam ne forcément am na recherche donc ba tax nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu teel a bëgg recherche nekk nag ba ñëwee en master amuñu problème parce que fii ci université bi def naa booy def master dafa am euh, boo jël sa sujet dafa soit sujet yi dafay am possibilité pour nga choisir sujet de recherche bala possibilité pour nga choisir sujet prof professionnel maanaam wàllum développement logiciel et cetera donc ñun ba ñu yeggee foofu euh, suñu motivation boobu ñu amoon moo taxoon ñu. teel a choisir recherche depuis master def master de recherche donc et euh, voilà ba ñu soutenir aussi donc ñu continuer ci volet recherche boobu ba tey. ah ça c'est parfait ça c'est parfait alors Sidia euh, pardon Camille yow lan moo la motivé ba nga voilà jékki euh, continuer sa jàng def doctorat. mooy comme li nga wax sànq xam nga da nga doon yow bi nga soutenir après da dem fenn bu dum liggéey. ah man dama euh, ne pasteur waaw directement man pratiquement même master bi laa def. Mhm. man master professionnel laa def. ok. parce que boo d'habitude boo paree master professionnel lu ci topp maanaam nga dem uti liggéey. exactement. mais entre temps dama gis ni ma nekk sama encadré de thèse euh, sama encadré de master bi moo nekk léegi sama encadré de thèse. ok dañu gisoon ni mënoon nañu continuer mënoon nañu continuer ci liggéey bi wala ñu yemalee ko ci master bi pourquoi pas ñu continuer te ci diggante bi. ci lam euh, projet wu ENDA bi mooy bi nga defee sa deuxième émission mooy Youssou euh, professeur Youssou Dieng mooy projet mu daan nekk foofu noonu. si si si si. bi nga dem ci projet bi ci la génn. Mhm. ci laa ne pourquoi pas ma continuer ci lancer boobu noonu parce que dama gis ni projet boobu noonu dafa am ñaari aspect yi ma ci marqué mooy d'abord aspect social bi parce que feebar la feebar boo xam ni nit. kenn mënu ko faj euh, traitement à vie la ensuite dafa di ci zone boo xam ni zone bi ñëpp ñoo fa bokk parce que ku nekk am nga imbok un peu partout ci zone bi et ensuite l'autre partie mooy partie informatique okay. parce que au moins ni boo demee ba jàngee mhm. na partie développement mais ci gannaaw développement dafa am lu fa làkku mooy partie recherche bi parce que dafa am benn besoin bu gars yi soxla soxla ma ne pourquoi pas ñun au moins nga solutionné loo xam ni da da la jege. avant nga dem solutionné mm-hmm. lu sori mais nga solutionné loo xam ni. Mm-hmm. sa quotidien la sa vécu la. ba pare sa mbokk ñoo koy dund. man loolu moo gën a motiver man def pour ñu recherche. waaw loolu nag loolu nag dafa mel ni patriotisme dëgg mu ngi ci biir quoi. Mm-hmm. ça c'est vrai ça c'est vrai. bokk bokk la ñi nga xamante ni dañuy xalaat rek euh, xaalis bi rek voilà alors xam li gaaw liggéey am xaalis voilà pour sama bopp tabax sama kër jënd sama oto <laughs> mais au fait tu réfléchis par par rapport ak euh, yow xam-xam bi nga am nga delluwaat ko sa population c'est-à-dire loolu am na solo bu baax c'est-à-dire ñu bari dañuy jàng euh, buñ paree rek seen bopp la ñu xalaat naa ut liggéey pour ñu may fay ba dugal sama poche. alors jamais nga gis c'est très rare nga gis ñoo xamante ni peut-être dañuy wax ne lan laa mën defal sama population. parce que damay gis le plus souvent ñu bëri dañ naan amoo liggéey aw liggéey c'est vrai que liggéey ñàkk na et tout ça mais je pense que aussi des fois c'est bien comme ni nga ko waxee nga xalaat aussi yow lan nga mën a defal sa population ginnaaw bi nga xamante ni def nga sixième ba li ba ba CM jeex nga def CM euh, lycée ba lycée jeex dem université ba université jeex mais après tu nga pare encore di réclamer waat encore ñan la jël nga liggéey mais est-ce am benn moment bu ndaw a delloo askan bi parce que tey école nguur gi moo ko fi teg enseignants yi la jàngal dañ leen fay ñu jàngal la c'est vrai que droit la mais aussi yow aussi war nga xam say devoir aussi nga mun a xool lan nga mun a defal sa population au lieu que di laaj à tout moment et mais je pense que euh, loolu aussi am na solo trop trop trop trop trop te c'est très noble alors je pense que léegi dañuy dem dugg nag directement ci sujet bi c'est-à-dire li nga xamante ni ci ngeen liggéey alors première question bi may te mooy euh, Sidia yow ci lan nga consacré euh, non pas Sidya parce que Sidya Sidya maa ngi ñëw ci yow après mais Camille baa ma njëkkee Camille Camille cest dire euh, est-ce que mën nga ñu expliquer en quelques minutes contexte sujet bi ci ban contexte la ak ban jafe-jafe ngeen bëgg faj euh, ak sa sujet boobu noonu nga xamante ni moom nga moom nga def thèse. ok Ibrahima damay kontaan trop ci répondre question boobu noonu. Mm-hmm. parce que keroog bi ngay invité professeur Youssou Dieng daanaka wax na lu bëri ci projet bi léegi man nag jaratu may dellu soit di répéter mais seulement damay wax loo xam ni damay damay concerné parce que fii nii moom comme kenn ku parce que dama benn euh, objectif bu ONUSIDA ciblé mooy maanaam les trois quatre-vingt-dix c'est-à-dire de faire en sorte de euh, de recenser quatre-vingt-dix pour cent ci nit ñi ñoo xam ni dañuy xam seen statut sénologique c'est-à-dire ndax am nga VIH. waaw wala déet day ci parmi les quatre-vingt-dix pour cent yooyu noonu dañ def en sorte que quatre-vingt-dix pour cent ci ñooñu noonu ñu ñu nekk sous traitement léegi quatre-vingt-dix pour def en sorte que quatre-vingt-dix pour cent ci ñooñu noonu ñenn ñoo xam ne dañuy continuer seen traitement dañuy respecter seen traitement normal waaye ñooñu ñuy respecter seen traitement normal dañuy am jàngoro bi mais duñ ko mën a wàlle. ok parce que ñëpp a xam VIH nu mel. si si. wala di mm-hmm. feebar boo xam ni den nañ ci yow a bi ki mënu ko faj. Mm-hmm. mais pour bañ ko war ñeneen ñi il faut nga ko ne si traitement yi. te deful traitement suba sida la ci fekk. Mm-hmm. te boobu tamit day métti. day métti mais comme fii nii ñu ngi ci benn zone transfrontalière zone sud bi fan la ñu Casamance am nga Gambie am nga Guinée am nga Sénégal am nga Guinée Conakry ainsi mais boo xoolee dafa am benn brassage de population parce que mouvement bi day bëri dem ak digg bi kenn du toog ku nekk daa am presque ay mbokk fa nekk mais aussi luy war a mobilité bi mooy surtout activité commerciale bi tey da ngay nga dem jaay fii su nga dem jaay fee ne ak aussi pratique socioculturelle yi loolu moo tax nit ñi dañuy bouger lu bëri dem ak digg bi dafa tellement dafa concentré ba affaire bi gën a léegi ku yor sida nag beneen affaire la parce que moom chaque fois day soxla ay traitement mhm. day day soxla ay antirétroviraux parce que yow dañ koy jël chaque jour ba keroog bi ngay génn àdduna donc à chaque fois da ngeen soxla médicament yi lu moo tax gars mooy suñu naataango ENDA yi ñoom ñu def benn euh, formulaire tuddee ko benn euh, formulaire de consensus tuddee ko benn fiche benn fiche boobu mooy permettre par exemple yow sa boo feebaree bu naree jógee ci benn dëkk benn bërëb dem beneen bërëb dañuy renseigner information yi ci fiche bi comme ça boo demee ci dëkk boobu nga présenter information yooyu ñu mën a xam yow ci ban statut ban statut nga tollu ci feebar bi balaa ñi lay defaa beneen fiche bu bees léegi boo xoolee fiche bi dañ ko traduire ci ñetti langue mooy Sénégal mu français mm-hmm. Guinée-Bissau mu portugais mm-hmm. anglais ak français. Eh, eh, Gambie ak anglais du moins mais boo xoolee fiche bi dafa am ñetti pàcc benn pàcc bi ñooy référence mooy par exemple tey ku feebar bu jógee benn bërëb nar a dem beneen bërëb il faut mu dem ci médecin bi médecin bi diagnostiqué ko bind information bi yëpp daal di koy jox ci fiche bi moom buy voyager bu yóbbaale fiche bi léegi moom bu yegee fee ci beneen dëkk bu muy bu muy dem noonu day dem ci structure de santé bi dem présenter ba fiche bi bu fa présenter fiche bi ñëw dañuy xam ni ah du yegsi na jóge na dëkk bii ni te ñëw na ci suñu dëkk kon dañuy xam benn information ci moom parce que jóge na beneen dëkk ak beneen dëkk léegi médecin bu nekk ci euh, dëkk d'accueil bi day bindaal beneen fiche de compte référence envoyé ko beneen médecin bi loolu mooy compte pour wax ko ne ko kii yegsi na quoi. merci kii yegg si na léegi am na tamit autoréférence autoréférence mooy maanaam ci yàkkamti ni nga voyager waxoo amoo jot dem ci médecin bi ne ko damay tukki léegi yow boo demee ba yegg il faut que médecin bi nekk foofu noonu mu ootee fii ni fi nga jóge comme ça gars yi jox la information information patient bi comme ça moom mun ko mun na continuer traitement bi. ok je vois. Mhm, recommencer waat à loolu mooy. du coup information yooyu ay papier sa fiche ba papier la. merci voilà laa la ñëw sax parce que boo xoolee information bi papier la ba maanaam fiche mhm. ah, mu xoteeku. ça c'est lu bëri xëy na ci ba pare ensuite. Mhm. ak fiche bi parce que nit boo patient moo toogee benn temps euh, yeneen euh, waxtu dematoo fenn. Mhm. dañ lay considérer comme perdu de vue. Mhm. léegi PTP mooy maanaam kenn gisu la mun na xamoon rek gaañu nga wala yaa ci dëkk bi kenn xamul léegi day fausser seen statistiques yi boo paree am communication xam na naa la ñu ngi zone transfrontalière mooy Gambie Guinée Bissau bu nekk am na benn propre mm. merci léegi imaginer ni boo boo ootee euh, médecin bi ban làkk lay wax keneen ki loolu tamit euh, problème la. boo tamit alerte yi tamit mooy par exemple contre référence yooyu dafa di information yoo xam ni yu bëri dañ cee perte te pourtant mënuñu benn affaire boo xam ni dañ cee boole yëpp mu doon benn. ok ok je vois comprendre. ne loolu mooy. muy suñu contexte. ok contexte bi merci ak problème tamit ñuy rencontré. problème yi ngeen parce que ça ça c'est vrai parce que euh, c'est vrai que nit ki buy jógee ci benn dëkk am jàngoro bi. war a jógee ci beneen dëkk dem ci beneen dëkk ñu war ko prendre en charge il faut que mu yóbbaale information pour que gars yi xam fan la tolloon ci traitement bi pour mun a continuer moom sinon day recommencer waat wala te loolu mun naa am ay euh, problème sûrement ci santé wala ci demee noonu quoi donc historique boobu noonu c'est c'est bien ñu xam ko parce que problème bi mooy papier lañ naan jël di ko traîner di yóbbu di échanger tu vois donc te loolu euh, c'est pas encore aussi communication bi dafa jafe parce que kii euh, anglais lay làkk kii est portugais keneen ki français donc donc du coup dina nekk problème alors donc ngeen fas à ce problème là ban solution ngeen proposer ci seen euh, ci seen thèse bi nga xamante ni moom ngeen di def nii. ok Ibrahima léegi yooyu boo ko jëlee mooy problème yooyu boo ko boole mm-hmm. ci lañuy ñuy proposer naa ne ñaari solution parce que première phase bi moom mooy euh, professeur Youssou Dieng waxoon na ko keroog. mooy mbirum plateforme bi parce que comme que si bi papier la woon ñii dafa daan voyage ak ay papier te papier boobu ay données kese ñoo fa nekk ay données kese léegi papier boobu nañ ko mujjee dématérialiser cette fois-ci nit wala muy voyager ak papier bi mais yow balaa ngay voyager sax médecin bi day dugg ci machine bi renseigner information yi yow balaa ngay yegg si beneen dëkk bi sax médecin bi xam na ni yow da ngay ñëw te xam na ne yow fi nga toll ci traitement bi. ok. loolu mooy système bu ñu. transfert de dossier la daal. merci transfert de dossier en quelque sorte léegi lu ne woon comme par def référence contre référence ak auto léegi duñ ko defante ak papier seulement léegi système bi moo mooy moom mooy gérer loolu yëpp ensuite problème alerte yi boo jógee beneen dëkk ñëw beneen dem beneen dëkk médecin bi day dañu mën a xam ni par exemple yow. de alerté keneen ki ni yow yegg si nga parce que boo duggee ci plateforme nga renseigné rek kii day xam ni carrément ni yegg si nga am na aussi cartographie. cest à yow médecin sax bu duggee ci système yi gis carte bi moom day laaj yow par fan fan nga dëkk wala fan ngay dem ci dëkk boobu noonu moom mu xool ban souci moo la gën a jege comme ça mu defal référence foofu noonu. am na forum foo xam ni ñi mënuñ fa waxtaanee benn forum privé ak benn forum public. forum privé pour médecins yi la entre ñoom aussi am na forum public boo xam ne médecins yi ñu feebar euh, yor VIH association PV VIH assistance sociaux yëpp mënuñu foog toog di waxtaan. ok ok et enfin lu gën a neex mooy euh, plateforme bi si ñetti langues yëpp la. ok saa yoo bësee day traduire kii bi information bi ñun boo xoolee sax ñun suñu apport yi nag ci euh, suñu thèse yi nag ci deuxième phase bi la nekkee parce que boo xoolee am nañu plateforme tey. fiche bi dañ ko dématérialiser def ko léegi ci système bi kon léegi yor nañu ay données mooy maanaam léegi mën nañu interroger la mën laaj données yi te ñoom boo xoolee seen véritable mooy période euh, de vue yi léegi ñun foofu mooy foofu lañuy ñuy andi suñu apport bi c'est-à-dire def comme yor nañ données yi nu ñuy interroger données yi nu ñuy laajee données yi ba keroog ni ñuy prédire période de vue donc par c'est-à-dire vous faites de la prédiction quoi da ngeen ni ni sóoraale c'est-à-dire ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a mun a réer ëllëg wala genre de beneen quoi. merci léegi en plus de cela nag mën nañu interroger tamit ay données comme par exemple ci traitement bi parce que keroog sax. suñu njiit pour projet bi waxoon na parce que professeur Youssou Dieng nee na par exemple boo jëlee fajum Ziguinchor mën na utee ak fajum eh, fajum euh, Sénégal mën na utee ak fajum euh, Gambie mu génn na utee tamit ak fajum Guinée Bissau si si comme données yooyu noonu fi yaa yaa ngi koy yor. yow hmm. léegi lu la neex mën na laaj données yi te dañoo jox yow li nga soxla. ok ok ok loolu mooy intéressant nag ci euh, ci domaine bi parce que loolu tamit day permettre ñu mën a décrire par exemple. cas de perte de vue mooy ñoo xam ni balaa ñuy ree sax dañuy xaw a anticiper mën na def léegi ay statistiques ci kii bi ñu koy sax ci prédiction yi anticiper information yu bëri parce que chaque fois dañuy alimenter benn moteur d'inférence boo xam ni day permettre connaissance yi di évoluer xam-xam di évoluer chaque jour buy dugg données xam-xam di évoluer léegi loolu mooy suñu suñu thèse. ok donc yéen seen thèse bi mu ngi gën Euh, centré ci affaire prédiction wu euh, cas perte de vue yooyu noonu ak partage d'expérience bi nga xamante ni war na mun a am ci biir entre euh, différents docteurs yeeg personnel santé beeg yu demee noonu quoi n'est-ce pas. si ok ça marche alors mais bëggoon naa xam aussi c'est-à-dire euh, voilà ci aspect technique bi c'est-à-dire. alors comment est-ce que vous avez créé euh, nag ngeen bëgg créer après plateforme boobu noonu ak aussi euh, euh, yan outils ngeen nar a utiliser wala yu demee noonu quoi et que ça sera ay fii ay application web lay doon wala ay web service wala lan lan la architecture boobu nar a demee quoi parce que yow boo xoolee nii eh, mu nekk web eh, application web application mobile parce que léegi boo xoolee sax technologie sax dañuy proposer lu ñuy woowee eh, responsive design. exactement mais application mën nga ko yor version mobile. mën mhm. nga web. Mhm. loolu yëpp euh, c'est possible. c'est possible ñu def ko ci quoi. ok léegi liggéey sax mooy ci web sémantique bi. ok ok. web sémantique ak ontologie mhm. alors web sémantique ontologie lan ontologie boo waxee ontologie c'est que mun nga ñu wax lu tuuti lan mooy ontologie euh, vite fait ñu balaa ñuy jàll ci beneen point bi. ah ontologie espèce su euh, système de système de graphe la. système système système de graphe la c'est-à-dire comme par exemple tey mu ne ma jëlee par exemple euh, un moteur de recherche comme Google. Mhm. tey boo lancé benn requête automatiquement. Mhm. moom day ni day déglu feneen daw dem récupérer information yi andi la ah, mhm. comme genre yooyu la nekk quoi système de graphe lay doxee. ok dem récupérer information andi la donc yoon da ngeen def recherche bi pour xam loolu yëpp naka lañ ko mën a implémenter ci yan norme lañ ko mën a tegee tu vois yaa demee noonu pour mën a aiguiller après développement bi nga xamante ni moom lañ war a def ci plateforme bu ba nga xamante ni day nekk lu robuste lu efficace n'est-ce pas ça c'est hyper euh, c'est euh, ñëw directement ci euh, comment dire ci Cydia parce que moom aussi mu ngi def thèse am ci benn domaine bu am solo mais avant ñuy dugg ci li muy def sax ci thèse bi parce que gis naa ci teebam bi ci ci euh, document bi ma gis mu wax ci RFID SF donc bëggoon naa avant sax ñuy dugg ci détails sujet de thèse bi est-ce que mun nga ñu expliquer déjà Sidia lan mooy RFID euh, RCF euh, ak ban rapport lañ am ak IoT quoi avant sax ñuy dugg ci ce sujet thèse bi spécifiquement. d'accord merci merci Ibrahima. donc comme ni nga comme ni nga ko waxee léegi donc ñun ñu ngi travailler ci ci RFID ci système RFID maanaam RFID boobu ci boppam. moom dafa dafa dafa dafa dafa nekk système boo xam ne eh, bala technologie boo xam ne ñett mbir ñoo ko seeg li ñuy wax lecteur hmm, li ñuy wax étiquette maanaam mun nañ ko wax tamit puce ndax hmm. mhm. lu ñuy wax tamit benn prologiciel maanaam prologiciel bi day permettre seulement exploitation fu ñu mën a toog di gis données yi léegi nag lecteur bi ak étiquette bi day capté étiquette bi capteur la boo xam ne données yi muy capté daf koy jox lecteur lecteur bi moo ko mën lire lecteur kese ko mën lire lecteur bi nag bu ko liiree pare moom mooy jël données yooyu lay lay la ñuy exploité ci beneen pro logiciel kon ñett yooyu ñoom ñoo sekk ñoo sekk système RFID yi léegi nag ci côté étiquette yi puces yi am na ñetti façon puce am na puce pat ay puce passive am na ay puce active ak semi lu ci nekk nag selon type d'application yi nga xam ne bëgg nga ko si ngay xool ci ñett euh, ban moo adéquat ak yow li soxla nga nga jël ko waane lecteurs yi tamit am na ay lecteurs fixes waane tamit am na ay lecteurs yoo xam ne ay lecteurs mobiles lañ voilà donc loolu daal moo nekk ci RFID yi léegi bu ñu jëlee beneen beneen bi nga xam ne moom lañu tuddee réseau de capteurs sans fil réseau de capteurs sans fil yi boo xoolee euh, ba fii moom moo ëpp audience maanaam nit ñi moom lañ daan gën a utiliser parce que moom moo doon permettre nit ñi ñuy mën a jël ay données ci ci ay zone hostile maanaam comme par exemple ay feu de brousse bala ay volcan volcan yi fu ñu nekk et cetera daan fa capter ay données parce que ay capteur la am moom tamit capteurs yooyu bu ñu capter données ñoom dañ koy joxante seen biir maanaam capteurs yi bëri la ñu jàpp données yi di ko joxante seen biir pour yóbbu ko ci benn benn zone benn puits foo xam ne fa lañ mën a exploiter données yi. ok mhm. kon léegi nag réseau de capteurs yooyu boo xoolee fu jamono jii fu mu tol nii RFID bi dafa ñëw jël tendance su euh, xaw ko dominer tuuti ci nouvelle application yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy proposer léegi te loolu jàngat bi mën na nekk ne. Euh, réseau de capteurs yooyu problème énergétique daf ci posé maanaam ñoom batterie la ñuy fonctionner fonctionner batterie. Hmm. te mhm. eh, capteur yi batterie moo nekk ci biir. waaw waaw ancien capteur dañ leen tuddee sax capteur traditionnel pour wane ne ñoom ay capteur la yoo xam ne eh, xaw nañu yàgg te différencié wu nañu ak capteurs yi yu nekk ci RFID yi léegi nag ñoom comme batterie la ñuy fonctionner te batterie boobu imaginer lu ñu déployer loo xam ne yóbbu nañ ko ci zone hostile batterie bi jeex nga war a ñëw ne da nga koy xam nga des fois day causer jafe-jafe Mm-hmm. moo tax ci wàllu boobu mm-hmm. voilà si wàllu boobu ay ay ay ay proposition yu bëri def nañ ko ci foofu ci côté boobu waane nag ci jamono jii ñu toll nii euh, yi moom tey la nit ñi gën a euh, jox solo ndax ñàkk batterie boobu maanaam lu muy utiliser si batterie bi dafa bëriwul. ndax ah, moom muy donc mais moom donc aussi batterie lay utiliser mais li muy consommer bëriwul. maanaam lecteurs yi sax parce que tey jii nii si RFID yi wax naa la sànq ne am na ñetti façon puce si RFID yi yoo xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy mën def captage am na puce passive am na active am na semi active passive bi boo xoolee moom sax du jël batterie moom maanaam batterie lecteur bi moom moo koy alimenté comme rajo la ay émulsion ay ay signaux la maanaam ay ay onde magnétique la onde magnétique yi pulsation yooyu muy def bu ñëwee ba laal benn benn benn étiquette Euh, passive si la koy jox énergie bu mu soxla pour kooku renvoyer ko ay kon cela dire que étiquette bi soxlawtul sax batterie boobu ñu koy woowe passive bu nekkee active la mhm. voilà moom soxlawul pour lecteur bi di ko jox di di di ko jox énergie parce que moom heure bu amee données yi mu war a envoyer xaaru ci kenn daf koy envoyer léegi parce que moom dafay dafay émettre donc kooku dafay soxla batterie waane am na tamit beneen bu ñuy wax semi active boo xam ne moom am na batterie mais batterie boobu noonu mu am moom euh, batterie bi c'est juste pour mu alimenter circuit interne maanaam circuit interne te boobu sax tamit gars yi gën nañ ko utiliser ci ay captage de données comme ay données température a yenen xeetu hmm. données yi nga xam ne dañ koy jël parce que foog mu am lu koy alimenter pour muy mën a jël ay données à temps exactement waaw léegi nag énergie bi moom du ko utiliser pour di ko envoyer waaye daf koy utiliser seulement pour que circuit interne mu mun di fonctionner ba muy mun capter données léegi nag lecteur bi bu envoyer signalam dafay mun di comporter wu comme passive moo tax ñu ñu koy naan semi actif. semi actif waaw semi passive autant semi passive ah, ok ok donc parce que moom dafa dafa soxla. Euh, énergie pour di jël données waane bu jëlee données yi lecteur bi si boppam bu ko envoyé signalam si lay mën a retourner les informations vers si si si si lecteur pour exploitation. donc bu ñu bu ñu waxee nag ñaari technologie yooyu dañuy gis ne pratiquement ñoom ñoo bokk ni ñu koy def li ñuy def waane euh, li leen li wutale mooy bii nii dafa soxla énergie bu bëri. énergie bi mooy sax problématique am alors que beneen bi en réalité moom euh, mun nañ ko pour yenn type d'application yi moom mun nañ ko jël mu jox ñu lu ñu soxla te énergie bi tamit du am du ci du ñu problème bu bëri noonu. poser problème quoi ouais ouais si si si si. parce buñ ko jëlee ñoom ñaar ñëpp. Mhm, mhm. vas-y. buñ leen jëlee ñoom ñaan ñëpp. Mhm. am na li nga waxoon seen rapport ak IoT. ak IoT xam yaa ngi wax naan internet des objets internet des objets mooy lan les objets mm-hmm. connectés mm-hmm. objets connectés yooyu noonu dañ ciy joxe rek exemple pour mun ko euh, nit ñi mun a comprendre ndaxte tey bu ñu jëlee arrosage automatique nga xam ne tey ay capteur ñoom ñooy xool si tool yi baykat yi euh, ay capteur la ñuy installé ci biir tool yi nga xam ne capteurs yooyu dañuy xool niveau niveau suuf si ba xam suuf si soxla na ndox wala soxlawul ndox niveau humidité bu ñu xamee suuf si ne soxla na ndox capteurs yooyu automatiquement ñoom dañuy envoyer message ah pour que pour déclencher benn action maanaam arrosage maanaam robinet pour que ñu mën a def arrosage automatique te pourtant loolu bu xasee am mooy nit dugalu ci loxom waaw exactement kon système intelligent système yooyu noonu nga xam ne ay systèmes yu intelligent la donc loolu noonu te connecté yooyu la ñuy wax IoT e mais tamit ku ko wax wax gis ne capteur mi ngi ci biir te yi ñuy wax ñaari technologie système euh, RFID ak euh, réseau de capteurs sans fil ñoom ñëpp ay capteurs lañ kon euh, looloo tax lien boobu am entre différentes technologies mais ñun plus précisément ñu ngi liggéey ci ci seen mm. RFID. RFID alors man je pense je sais que dugguñ sax ci contexte sa euh, sujet de thèse bi ak problématique yi mais maa ngi commencé déjà comprendre déjà tu vois déjà RFID RC SF bi que auditeurs yi aussi comprendre nañ déjà euh, domaine bi quoi euh, dans sa globalité alors maintenant dañuy dugg nag ci li nga xamante ni yow moom moo nekk sa sujet de thèse. tu vois maanaam optimisation des performances de protocole danti dans les réseaux alors naka nga ñu mën a expliquer euh, sujet boobu noonu contexte bi problématique yi ban problème ngeen bëgg a régler avec euh, euh, recherche yi ngeen nar a def foofu noonu quoi. d'accord donc loolu boo gisee sujet boobu ñu libalee ko noonu mu ngi ñëw ci contexte bi ma la wax sànq ne jamono ji fu ñu tool nii RFI day pratiquement application yëpp yu ñuy def ñu ngi koy defee RFI si wàllum ci wàllum bay bi agriculture ci wàllum élevage si wàllum euh, arrosage arrosage automatique yi ci wàllum sax euh, vol des bétail nga xam ne day joxe traçabilité des animaux ah maanaam ñuy mën a xam animaux yi euh, jur jur ji fan la ñu nekk ndax dañ leen di defaral ay ay étiquettes ci seen nopp des fois kuy gis image di ko gis. si seen nopp yooyu ay ay puces la. ay puces la bu ko defee ñu leen di mën di tracer fi ñu ne. donc boo gisee. mais mais mais mais mais yaa ngi yaa ngi joxe astuce foofu de damay ragal am ko sàcc benn xar dagg nopp bi de génne puce bi dem yoon. <laughs> la war a doon naka gaa yi na ah. tànk bi léegi. <laughs> Ah. <laughs> Euh, donc boo boo boo gisee loolu ba ci sax tey ci centre commercial yi nga xam ne. Eh, ñun tàmmoo nañ di gis ne boo fa duggee dafa am eh, produit bu nekk dañ ciy taf ay éti eh, ay kii comment dire code barre ah, code barre yooyu noonu boo hmm. ñëwee waa lecteur dafa am lecteur code barre boo xam ne mooy lire code barre ah pour xam njëg gi ñaata la yooyu noonu donc yooyu noonu tey boo xoolee système RFID yi tamit dugg na ci marché boobu ba nga xam ne léegi centre commercial yi am na yoo xam ne pratiquement sax intervention humaine amu ci nax boo duggee ay ay lecteurs yu bëree fa ne ay boo jëndee sa panier étiquette yi dañ leen taf ci produit yi à la place des codes barres ba nga xam ne euh, boo jëndee sa sa panier yëpp produit yi si nekk à distance ah, am na ay ondes magnétiques yu dem ba ñu ba ba lecteur bi lire information chaque produit yu nekk ci ci étiquette yi ba xam sa total panier ñaata la wax la prix bi nga génn te pratiquement euh, voilà da ngay ñëw rek fay ci ci kii. directement amatul ay rang yu métti yeeg yi nga demee noonu. compte produit yeeg waaye c'est c'est c'est effectivement donc nga gis ne kon gars yi ñu ngi koy utiliser li bëri maintenant utilisation boobu dafa ñëw ci benn contexte maanaam lecteurs yi comme ñoom ñooy liir étiquettes yi léegi nag bu fekkee produit yi dañu bëri étiquettes yi dañu bëri ci benn zone zone boobu noonu. am lecteurs yi néew fa bu boobaa dafay am latence maanaam lecteurs yi bu ñu bëggee lire étiquette yooyu yëpp te ñoom dañaa néew bu boobaa day indi problème maanaam day yéex lecture bi day yéex parce que étiquette yi ñu war a lire ñoom ñoo leen ëpp fuuf ñaari lecteur nga am bëgg am étiquette lu toll ci fanweer bala lu ni toll donc moo tax gars yi def lu ñuy wax densification pour régler problème boobu maanaam yokku nombre hmm. lecteurs léegi nag bu ñu yokkee nombre de lecteurs yi ci zone boobu pour que lecteur bii buy liir ñii ñii di liir fii ba pare mu amaari ay lecteurs mobile yi nga xam ne dañuy déplacé wu di liiraale pour que lecteurs yi mun a gaawandoo léegi nag kon loolu ñu indi comme solution muy euh, densification dafa mujj nag indi problème moom ci boppam parce que interférence problème d'interférence moo mujj am comme ñoom mm-hmm. onde magnétique la ñuy fonctionner kii mm-hmm. bu émettre keneen ki mm-hmm. émettre ku ci nekk da ngay jeuner sa jeunesse sa morom donc mu indi problème de communication parce que ñooy bokk support de communi communication voilà léegi nag ñun foofu lañ taxaw maanaam régler problème de communication boobu parce que problème de communication bi nekkul daal lu dul ay collision bu ñu waxee nag collision. mun nañ ko rek donc yaa door a ñëw ci mot bi nag collision bi. parce que bëggoon naa laajte. voilà c'est quoi collision dans ce truc là quoi ok ok. collision nekkul dara lu dul Euh, ay ay ay wax yi daj comme tey euh, euh, bu ñu jëlee benn support de communication comme par exemple rond xam nga rond-point bi oto yi jaar mhm. foofu dafa soxla ñu normer ko waaw dafa soxla réglementation parce que oto yi ku ci nekk da nga fa war a jaar benn support la de support de communication boo xam ne oto bu nekk dang nga fa war a jaar léegi foog mu am koo xam ne da koy normé léegi nag bu ko deful lu ko mooy euh, dina am lu ñuy wax choc maanaam collision entre oto collision yooyu nu mu amee tamit noonu la amee ci communication waaw ah. naa la jox firndeel bu may wax ngay wax te euh, hmm. wax bi amul organisation bu ko defee li may wax ak yow li ngay wax bu ñu waxandoo doo ma dégg du ma la dégg ça c'est vrai ça c'est vrai hmm. voilà donc voilà te loolu nag lan mooy jeexantal bi jeexantalu loolu mooy dafay indi lu ñuy wax perte de données maanaam day day mujj ñiy perte ay données lecteurs yi données yi ñu waroon envoyé finalement données ya kenn du ko mën a lire parce que dafa am colli collision kon données yooyu perte nañ ko ma dégguma la donc finalement perte de données lay indi léegi nag ñun suñu thèse dafa taxaw foofu pour di lijjanti euh, indi ay pexe ci nu ñu mën a fexe ba minimiser maanaam wàññi euh, perte de données yooyu di am te collision yi posé ko ok donc loolu moo indi anti collision bi. anti collision voilà. alors léegi rapidement ban solution ngeen indi pour régler anti collision boobu noonu. voilà donc ñun bañu bañ ko démarrer comme recherche moom c'est c'est mm-hmm. universel. Mm-hmm. ndaxte solution yi ñuy joxe tey am na suñu yeneen naataangoo yoo xam ne ñu ngi ci yeneen réew ci àdduna bi ñoo xam ne ñoom tamit ñu ngi liggéey ci fànn yooyu ñoom tamit joxe nañ ay solution comme recherche moom daal universelle nit ki lu mu gis dina ko publier dina ko diffuser ñeneen ñi jël ko ku ci gis li nga xam ne mun nga ko yokk pour mu gën bu nga def ko ci donc ñun ci fànn boobu lañu sayto xool liggéey yi nga xam ni ñeneen ñeneen ñi def nañ ko ba gis yi nga xam ne ñoo ci gën a mujj xool ci gis ci ay point d'amélioration yoo xam ne buñ ko defee mu doon lu hmm. gën euh, ñu def ko bañ ko defee tamit proposé nañ ko nit ñi jël nañ ko nangu nañ ko euh, ñi ko war a saytu bañ ko saytoo nangu nañ ko solution baa ngi en ligne. ok fii ñëpp di dugal seen solution. ok voilà. ok ok je donc du ko donc du coup yéen euh, problème anti collision boobu noonu euh, comme ni nga ko waxee léegi ni ko expliqué nii c'est-à-dire da ngeen di proposer benn méthode boo xamante ni ça sera c'est-à-dire euh, c'est-à-dire c'est pas nekkul peut loo xam ne da ngeen koy implémenter implémenter ngeen ko déjà mais ay solution ngeen di proposer da def ay recherche xool ay solution yoo xamante ni war na mën a régler problème bi ngeen vérifier ko. ba pare éprouver ko quoi ba pare mu ngi ko mën a mettre place quoi nest voilà léegi solution yooyu comme ni nga ko waxee noonu lañ koy def buñ ko jëlee mhm. étudier ko. xool ko bu baax saytu ko ba pare nag mhm. def lu ñuy wax simulation. Mhm. bu ñu defee simulation bi. moo ñuy moo permettre ñu mën a xam euh, solution boobu noonu performance am yeex euh, par rapport ak ñeneen ñi ba xam moom gën na ñeneen ñi et cetera xool performance am yëpp. ba pare nag xayma ko def comparaison munoo wax ni lii kat moo moo buñ ko defee mooy gën. mooy gën euh, li fi nekkoon. ok ok alors je pense que d'ici quelque temps dina ñëwaat encore. vers vous parce que il faut que ñu xam li nga xamante ni sumb ngeen ko yëpp fan lay mujjee tu vois euh, pour jéem ci waxtaanaat pour jéem a xam fan la résultat yi toll wala xool aussi euh, progression bi je pense tu vois yaakaar naa dinañ amaat occasion defaat yeneen épisodes yu bëri pour loolu quoi. alors euh, tey jii nii bëgg naa aussi laajte est-ce que tey d'après seen expérience parce que ça fait quelque temps yéen a ngi def seen doctorat yéen a ngi ci biir pareegu leen résultat yi nga xamante ni. moom ngeen di gis ne moom la ñuy moom ngeen di trouver ak peut-être ñi leen juuti ñu nga xamante ni pare nañ ci ñoom ba pare est-ce que résultat yooyu noonu dañ koy utiliser directement sur le terrain ci euh, zone bi ngeen nekk muy Ziguinchor wala euh, ci Sénégal wala ci Afrique wala ci monde entier bi est-ce que tey jii nii yaakaar ngeen ne résultats yi nga moom ngeen am bu ngeen defee seen recherche yu pare dina nekk résultats yoo xamante ni dañ koy mën a utiliser euh, partout sinon bu fekkee ne utiliser utiliser wuñ ko aussi lan ngeen xalaat ne moo war a mën nekk blocage yi quoi ok Ibrahima fii nii moom par exemple ñun boo jëlee suñu cas mhm. mooy xam nga sànq am na ñaari phase mooy ci solution yi mhm. daa am première phase ak deuxième phase. ok donc pour l'instant yi première phase moom mi ngi dox moom mooy plateforme bi plateforme bi ñu koy utiliser fu mu toll nii deuxième phase yi foofu lañ nekk parce que pour def deuxième phase mi il faut dañu soxla ay données information donc il faut gars alimenter tuuti. Euh, forme bi comme ça ñu mën a récupérer information yi comme ça mën a interroger euh, données yi comme ça waxoon naa la kii ontologie mais comme que daa xaw a technique léegi bàyyi ma kii bu gën a terre à terre c'est-à-dire ontologie mooy maanaam le fait nga euh, euh, xam-xam machine parce que ñëpp a xam ni machine xamul dara mais le fait nga jox ko xam loolu mooy ontologie ça dañ koy jox ay règles léegi saa yoo ko posé question mën a tontu léegi fi mu toll nii moom. ñi waajal deux ontologies benn ontologie de domaine mooy ci VIH bi. Mhm. boobu mooy permettre par exemple ñu xam parce que boo nee VIH daa am partie biologie moom partie feebar bi ak partie traitement bi léegi deuxième ontologie bi ñu nar a proposé mooy ontologie de processus bi ontologie de processus bi mooy maanaam euh, malade bi prise en charge bi analyse bi yu muy def tout le temps accompagnement psychologique yi parce que chaque fois il faut mu gis kii. assistance sociale parce que ñoom dañ leen di xaw a stigmatiser aussi ak yeneen eh, eh, eh, parce que seen tamit seen garab yi day am effet secondaire. effet secondaire ok xam boo ne mi mi ngi làqu ci ganaaw léegi au fur et à mesure nànk dañ dem ba di génne yeneen yi. ok ok ok léegi partie blocage bi moom. pour l'instant moom. sant la ko quoi. appartenait ah, ouais si si si si si si si euh, cest mooy blocage yi tax peut-être seen travaux yi ngeen def parce que yow je pense que euh, sujet bi nga nekk c'est parce que c'est financé déjà par inda tu vois ñoom euh, voilà ñu ngi e affaire bu bari mais des mun nga def benn sujet thèse boo xamante ni aussi da nga koy def ba pare comme li tax sax moom moom motivé ba may mën a ba may def épisode yi ci affaire recherche scientifique parce que da ngay gis ne gars yi def recherche ko ci tiroir ko utiliser. alors donc loolu lan moo tax kenn du ko utiliser lan mooy nekk blocage yi quoi donc loolu aussi question la boo xamante ni tey man damay am envie waxtaan ci ak doctorant yi quoi parce que mënoo liggéey pendant des années ci benn affaire pare ranger ko ci tiroir mu mu jeex lan moo nekk blocage yi ba ñeneen ñi duñ ko utiliser quoi. ok Ibrahima baal ma di benn euh, correction mu ndaw. Mhm. en fait thèse bi c'est pas financé. c'est pas financé. ok ok. c'est pas financé ah nekkul ne yéen c'est-à-dire waa ENDA dañu leen financé mais alors dans quel cadre ngeen di liggéey euh, ci projet boobu noonu quoi euh, avec ENDA parce que yéen li ngeen di def après euh, c'est pour le compte de ENDA n'est-ce pas. tout tout ñëpp ciy gagné ah. ñëpp a ciy gagné ok. partenaire waaw partenaire dañuy soxla mm-hmm. ah, tamit dañuy soxla tamit xam mm. tamit projet bi Ok, ok, Là. ok, ok, je vois, je vois. Alors moi je pensais que Enda il a financé ce projet-là pour que ngeen mën a def euh, euh, pour que voilà ngeen mën a def thèse boobu noonu quoi je pensais que daf ko financer quoi bon mais bon y a pas de souci parce que am na lu ñuy wax aussi ay thèse chiffres tu vois yoo xamante ni des entreprises wala des entités ils financent euh, des étudiants pour ñu def benn thèse. Euh, voilà comme ça euh, à leur charge quoi donc comme ça bu ñu paree après euh, njëriñ bi ñoom ñaar ñoo koy bokk quoi donc kii dina am titre bi mais ku kii kay aussi dina régler problème am quoi ouais mais bon c'est comme ça alors donc du coup euh, donc du coup yow Sidia qu'est-ce que tu penses ci blocage yi ak est-ce que lan nga gisee tey thèse yu bëri yi nga xamante ni dañ koy def ranger ko ci tiroir yi lan moo ko waral ak c'est quoi le problème yow selon yow. waaw damay rebondir fi nga wax rek parce que mhm. réellement euh, thèse yi bu fekkee ne tey xam nga thèse bi bi nga xam ne Malak dafa dafa nekk di ko def donc thèse boobu dañ koy utiliser bu paree de utilisation parce que c'est un besoin boo xam ne c'est les euh, c'est les acteurs eux-mêmes ñoom ñoo ko soumettre même si sax bu fekkee ne peut-être yeneen li si waat defuñu ko bon amu ci mais quand même loo xam ne la buñ bu ci pare dañ koy utiliser waaw donc pour man thèse yi fi nga waxee rek la heure bu jógee si bu nekkee besoin rek te acteur bi euh, joxe ko rek je pense que loolu moom day jëm ci ci utilisation directe mais problème bi mooy dañu nekk ci réew moo xam ne euh, dafa bëri ay problème te ba pare euh, ñi nga acteurs yi nga xam ne dañu nekk ci seen ci seen secteur problème yi féetewoo seen secteur génnewuñu problème yooyu dem yóbbu dem yóbbu ko joxe ko fi ñu ko war a joxe nit ñi seet ko hmm. ba te nag mënuñu toog ci ab réew yor ay université te yor ñu ay seetkat donc seetkat yi bu ñu amee soifu seet dañuy mujj nag finalement hmm. euh, bàyyi xel problème yooyu ba pare di ko def di ko def parce que ñoom ay chercheurs lañ di ko def au détriment de euh, naam sax amuñu amuñu financement naam amuñu leneen mais seen mbëggeelu seet rek yóbbu leen ci ñuy seet donc je pense que tey loolu mooy le véritable problème mais bu doon jógee fu muy jóge yàlla xam na ne euh, thèse yi tey euh, dinañ ko utiliser. et que euh, si si alors daf may xaw a jox tuuti rek mu ngi mel ni nga nekk benn ingénieur informatique mun nga développer ay applications et tout ça mun nga def ay solutions nga toog sa kër. Mm-hmm. démo à la mm-hmm. rencontre des personnes. bëgg par exemple nga eh. toog sa kër bëgg dimbale baykat bi nga xamante ni mu ngi fële ci tool ba xamoo li muy dund xamoo dara voilà tu fais tes recherches rek ba ñëwut bëgg defal benn application pour dimbale baykat bi ça sera très compliqué. Hmm. il faut que nga dem ci moom xam li muy dund. Hmm. pour mun a génne problème ut solution par rapport ak xam-xam bi nga am parce que xam-xam yi ñuy wax ni yëpp ay outils la ay jumtukaay la yoo xamante dañ koy mën a utiliser pour régler ay problèmes hmm. machine bi. nekkuñ ci nekkuñ ci clavier yi nekkuñ ci voilà je pas ci langage mais problème yi ñu ngi ci terrain bi boo demee ci àll bi boo demee ci euh, ci ci ci je pas moi ci ci kër yi boo demee ci yéen biir entreprise yi ni ñuy liggéeyee boo demee ci ainsi de ci géej gi ainsi de climat bi donc foofu la problème bi nekk quoi donc mooy mooy vrai problème yi comme ni nga waxee nii rek que je pense que sunu njiiti aussi ñu mën a euh, génnee problème yi càmbar ko génne ci ay sujet financer sujet yi jox ko chercheurs yi euh, ñu mun ko développer indi ay solution comme ça nga xamante ni problème bu ñu génnee rek suñ ko solutionné dafay réglé wu mm. benn yoon mu jeex et je pense que c'est ça mm. euh, loolu mu war a nekk euh, schéma bi et mm. je pense que bu ñu ko defee woon noonu di koon lépp dina normal mais voilà bon ñu ngi dem Ziguinchor lañ mm. commencé après ñu ngi dem Thiès Bambey dinañ gën a xam exactement naka la lépp di demee quoi tu vois alors mm. tey jii nii gis naa ne aussi def ngeen ay quelques euh, temps ci thèse bi yéen ngi évoluer ndànk-ndànk alors euh, am na ay affaire yu ngeen dund ay challenge ay difficultés am na aussi ay ay ay succès ay ay ay ay mbégte alors lan ngeen mën a partager tey ak auditeurs yi par rapport li ngeen dundagum ci seen euh, ci seen thèse bi Camille. Euh, ok Ibrahima merci pour euh, euh, question bi. ma sànq am na lu ñu waxoon léegi léegi nii mooy par rapport ak thèse mooy financement bi. te mhm. boo xoolee aussi dañu bëri taa problème ok. Mhm. Mhm. fii boo xoolee thèse bi am benn financement. ok fii nii à notre zone à notre niveau. léegi fu yow yaa demal sa bopp. c'est compliqué mooy xool balaa fay bi sax pour am sa bourse sa problème la parce que fin d'année nga am nga jot sa bourse. waaw ça c'est ay ay ay problème waaw c'est un peu compliqué ñun boo xoolee fii nii lu ñu fi téye suñu bëgg-bëgg moo tax ñuy def lii nii. ok ça c'est bëgg moom même dañu bëgg apporter quelque chose à la société. macha allah bëgg wane tamit suñu moo tax ñuy reyante pour loolu. mais ñu ngi carrément ni conditions yi on fait on fait avec n'empêche département bi labo bi ñëpp dañu ciy teg seen loxo. mais di nga carrément ni affaire des na. ok. waaw wala pour publier sax ay articles sax mooy suñuy aînés sax dañuy am dañuy am ay problèmes. Mhm. accéder yeneen revue pour euh, littérature bi sax il faut il faut nga fay comme ça nga mën a parce que mënoo du mhm. n'importe quel document moo nekk euh, public daa am document bi la pour lire ko il faut nga fay. exactement ça c'est vrai. yi mhm. les yooyu daa xaw doy waar. te instant yii sax damay profité ci occasion bi sax pour euh, gërëm waa Ndao bi sacrifice yi ñuy def pour ñun. Mm-hmm. ci matériel yi mm-hmm. bëri def ok ok ça donc je pense que man ñu ngi euh, jaar ci peut-être émission bi je sais pas ndax nit ñaa am nañu koy déglu ci autorités yi wala ñeneen ak ñeneen mais je pense que euh, nécessité la tey ñi nga xamante ni ñoo nekk di def recherche ñu jox leen financement jox leen ay outils yi nga xamante ni dañ ciy mën a liggéey pour def def li ñuy def parce que euh, genre problème yu mel nii rek je pense que moo tax euh, am ñu koy daw sama genre gi di daw naan ah maa ma dem uti xaalis <laughs> que au fait nekk père de famille tu vois am njaboot am lépp tu vois wala boo nekk père de famille sax yow euh, tu es responsable même tu vois war mun a gérer sa bopp war mun a gérer aussi sa liggéey te je pense que tey boo mënta gérer sa bopp sax tey dina jafe trop nga gérer sa liggéey imagine toi nga xëy. war a dem labo def recherche bàyyi sa kër ay problème yu bëri est-ce que boo demee labo dinga am concentration c'est une question tu vois laaj la est-ce que tey jii nii soo fekkee yaa ngi am ay problème yu bëri pour matériel yoo war a mën a utiliser pour def sa recherche est que dina mën a tax nga comme nga nga nga nga nga performant bu baax a baax ni sa capacité bi nga am yëpp nga mën ko exploiter tu vois est que tey jii nii su fekkee ne mënuloo euh, fësal sa xam-xam c'est-à-dire xam-xam bi nga yor recherche bi nga def ak li nga trouver soo ko mënta fësal ci àdduna bi est-ce que ñeneen dañ la dinañ la découvrir ba accepter ñëw waxtaan ak yow discuter ak yow partager ak yow ay xam parce que man je je me dis ne tey euh, dañoo nekk ci village planétaire comme ni ñu ko waxee ay année ci bu yàgg quoi je pense que village planétaire bi tey la gën a nekk dëgg man ça fait presque un an et quelques ngi def sama épisode yi pratiquement ñi may defal épisode yëpp pratiquement mosuma leen gis. tu vois sur internet rek la ñuy jokkoo waxtaan def suñ épisode def tout ba mu yëpp jàll alors je pense que tey jii nii aussi euh, doctorant yi ak ñëpp war nañ leen mën a jox benn euh, gëdd boo xamante ni dañuy mën a yóbbu seen travail fu nekk au lieu que ñu naan nañ exporter bi mu dem fale nañ exporter film yi nañ exporter mais nañ exporter suñ scientifique yi nañ exporter suñ xam-xamu euh, recherche chercheurs yi ba nga xamante ni àdduna bi dañ koy gis xam ne ñun aussi dañuy rechercher dañuy seet dañuy gëstu comme ça ñu mun ñoo boole ci mbir mi boole ñu ci décision yi waxtaan ak ñun partage parce que nit ki bu xamul ne yaa ngi ci mbir rek peut-être mun na la bañ a nawloo quoi tu vois mais boo xamee ne yow aussi yaa ngi participer da lay nawloo dalay jox sa gët et je pense que lu lu am solo lu baax a baax a baax alors Sidia yow lan nga xalaat ci euh, challenge yi nga xamante ni euh, dund nga ko ci sa biir thèse bi ak lan nga ñu mën a partager ak auditeurs yi. waaw yow Ibrahima man kañ daa mel ni sax yow danga ngaa da ngaa xam ni li gars yi di dund parce que li nga fi wax nii yëpp Mm. Euh, dem def naa def nga bilan bi xam naa moo tax nga ne am uti <laughs> donc donc comme ni nga ko waxee yàlla xam ne ni ni nga ko waxee duñ ci tegg dara parce que mm. réellement ay ay père de famille la ma ay mm. père de famille malade que ça soit malade que ça man ak ñeneen ak ñeneen ñu ne si la ko bien ah. mm-hmm. te am xam nga tamit nit ki même sax bu fekk buñ nee père de famille euh, même nit ki bu marié wul amul doom amul euh, charge mais mhm. aussi réellement moom euh, fii ku fi jàng ba niveau bii rek niveau bii rek yow am nga responsabilité vis-à-vis ak say parents ak say ak say frère ak say di rawatina nag nga takk soxna am doom donc finalement yow ma ne xam nga bu baax nit ñi euh, lan lañ nekk di di mais nag lu ci am solo am solo mooy Euh, lépp képp koo jël rek boo làmmee dina metti mais ñun lu ñuy suñu suñu lu ñu fi téye ba tey bala suñu motivation moom moo fort motivation bi moom moo fort moo tax euh, duñu ñu mun a daw tout le temps euh, dañuy nekk toujours di voilà di tendre vers loolu parce que li ñu téye dafa dëgër donc mais comme ni nga ko waxee rek problème mënul ñàkk ñu ngi si problème yi ñu ngi koy ñu ngi koy surmonter n'est-ce pas tant que c'est difficile mais réellement voilà c'est ce qu'on mais euh, yi nga wax comme solution yooyu vraiment bu ko nit ñi bàyyi woon xel je pense que dina dina aider même tey yeneen question yi nga xam ne yaa ngi ciy ñëw tey ñii di daw bañ a daw chercheurs yi gën a bëri ndax lu ñu war a seet bëri na waane tamit euh, des fois c'est pas encourageant moo tax nit ñu bëri tamit dañu préférer dem d'autant plus que boo boo yeggee Euh, cinquième année après porte yu bëri day tijjeeku si yow pour nga dem donc ñu moo ñu bëri di ko exploité même ñu amee amour sax pour de mais finalement ils vont dañuy ah, bàyyi mu dem defi la xaalis voilà maa ngi maa ngi lancé aussi benn appel entreprise privée yi parce que aussi euh, tes chiffres yi dinaa koy gis à à l'étranger tu vois en France ak yeneen pays mais euh, c'est vrai que peut être je pense que xaw ma am na Sénégal am wala amul Sénégal mais peut être mën na am bëriwu fi kon mooy thèse yi nga xamante ni entreprise privée yi ñooy am ay besoin financer thèse yooyu étudiants yi ñu mun na def ay recherche ci affaire bu mu demee noonu donc dañ leen di fay salaire et tout euh, ñuy dem ñuy def va-et-vient entre et l'université et je pense que modèle boobu aussi modèle bu am solo la sunu entreprise yi nekk ci Sénégal am nañ ay jafe-jafe am nañ ay problème nañ financer xam-xam nañ financer ci xam-xam bi pour am ay résultats pour mun a xam naka lañ war a mun a taxawee suba parce que recherche loolu lay jëriñ recherche mun na la jëriñ nga indi ay innovation yu bari ci sa entreprise mais aussi nga compétitif parce que compétition duñ ko euh, compétitivité nekkul ne tey lañ koy liggéey mu tey da ngay waajal lu war a xew d'ici dix ans et pour cela chercheurs yi ngay jël ñu wax la lan moo war a xew di ci dix lan moo war a bees lii nag lañ ko war a defee ainsi de suite ainsi de suite donc entreprise privée yi aussi am nañ ci wàll bu rëy alors ban message on est ñu ngi waaj a jeexal épisode bi ah ban message euh, ngeen di lancer à tout la jeunesse sénégalaise par rapport ak njëriñu recherche Camille. merci Diago message mooy lancer jeunesse bi par rapport balaa nga def recherche il faut nga benn niveau il faut nga il faut nga jàng nga am benn niveau ñun boo xoolee depuis xaw ma ñaata ñu ngi jàng. waaw yàgg na waaw yàgg sa bac mhm. nga ñëw licence master ba pare sa master ci ngi mën a def thèse kon balaa nga def recherche il faut nga jàng def cursus scolaire mooy bu normal waaw munoo yeewu ni nga ne da nga def thèse loolu c'est la première chose mooy maanaam ma jaaxle ñu jàng surtout bu ne. Euh, def au maximum ci surtout filière scientifique yi filière scientifique yi parce que boo xool foofu lay jóge te boo xoolee dëkk yëpp ñoo ma demal seen bopp fii jarul ñuy toog ñuy xaar keneen jógee fee ñoo defal suñu suñu réew ñoo ko demal suñu bopp parce que boo xoolee sous région yi yeneen dëkk yi li ñu dund yëpp heureusement fii dafa am benn stabilité dañ nar a appuyer ci stabilité boobu noonu mettre suñu connaissance en valeur pour loolu il faut jeunesse parce que jeunesse moom mooy développé. maman maman s'il te donc lu may ñaan mooy ñu yokk euh, seen doole si jàng bi. si si ñu jàpp te ñu bañ a bàyyi parce que recherche bi moom pour ñëpp la moom. Hmm. parce que looy solutionné du pour yow mais pour bi la. exactement société bi moom njëriñu. te suba boo demee recherche surtout moom du dañ parce que loo def dañ naan diw la. diw moo ko def ça c'est vrai. Euh, cinquante génération. surtout surtout moo fay nekk loolu mooy loolu moo passionnant na ko fekk. waaye c'est c'est hyper intéressant ça. Mm-hmm. parce que boo demee entreprise di nga benn affaire. Mm-hmm. mun nga feeñ bañ a wala nga bañ euh, mun nga feeñ wala nga bañ a feeñ. si si si mais recherche moom parce que sa propre euh, article la. Mm-hmm. nga teg ko nga def ko ci nga présenté ci conférence loolu moom du nekk. si si si si ça c'est ok li may li may encouragé def euh, recherche. ok macha allah. ça c'est ça c'est parfait je pense que message bi jàll na gars yi dinañ ko dégg et ñi koy déglu aussi euh, man ñi ma ci gën a intéressé sax mooy ñi nekk premier année deuxième année troisième année parce que alors ñoom ñoo war a mën a def après thèse tu vois euh, def ko seen xel mi déjà quoi parce que bon ñun moom. man nag maa ngi xalaat def thèse ah maa ngi koy xalaat bu baax a baax a baax xam naa ni nañ may tuuti rek après dinaa def thèse incha allah <laughs> mais alors Sidia Sidia yow euh, ban message nga bëgg a lancer à toute la par rapport ak njëriñu recherche. waaw man pour man Camille wax na lépp ah, ci jeunesse bi mais juste que pour euh, peut-être lancer message à nos nos ak aussi entreprises yooyu nga wax parce que comme ni nga ko waxee euh, sujet sujet de recherche yi ñoom ñooñu. bépp entreprise boo munti nekk tey informatique amul ku ko dul utiliser fi nga mën a nekk amul donc solution yi problématique yi ngay am donc problématique yoo xam ne la tey amoo temps boo ko mënoon sax amoo temps wu def ko parce que entreprise si productivité lañ ko xam donc si productivité productivité si euh, voilà donc léegi mënoo lu dul jox ko soumettre ay chercheurs n'est-ce pas ñoom ñu seet ko buñ ko seetee def la ay retour yoo xam ne dina dina favorable te mu gën a booster say say mais beneen fànn bi tamit bu ko entreprise yi deful tey jii nii am nañu gouvernement boo xam ne ay ministre ne ministre ministère bu ne am na loo gérer de naa la jox ministre de euh, tey li ma fi wax ci application boo xoolee bu ci nekk laal na ministère commerce laal na fi génnee na li ma wax sànq agriculture li ma waxoon sànq ci application génnee nañ fi aussi ministère de l'environnement n'est-ce pas euh, donc ministère de l'urbanisme tes parce que tey jii ni si monde bi fépp foo dem y a pas mal euh, pas que temps yi rek euh, en Europe le le le nit ñi di di di di di recherche si même domaine bu ñu nekk ñun di ci xool euh, nu ñu mën a xoolee les les infrastructures urbaines ñu koy tuddee euh, les smart cities n'est-ce pas donc yooyu noonu waaw les smart cities yooyu intelligente yoo xam ne arrêt yi infrastructure urbaine yi yëpp dañ koy surveiller n'est-ce pas te yooyu ay étiquette ak ay lecteurs ñoo xëy ne ñuy taf ay lecteur mobile ci ay oto ñuy daw di jël information yi di ko yóbbu di relayer tey surveillance forêt yaa ngi fi gaar bu ñu ñu ngi wax euh, coupure des arbres n'est-ce yooyu yëpp ay étiquette mënoon nañ ko taf ci garab yi n'est-ce pas ay drone yëpp ñuy surveiller di surveiller di di relayer données yi n'est-ce pas wax ay vol tey jii nii application yi mënoo kon tey bu fekkee sax entreprise yi ñoo mënuñu tey je pense que gouvernement yi ministère yi bu ñu doon def chaque chaque peut-être trois ans ñu am benn projet boo xam ne ou deux projets génnee ko mm. chaque ministère jox ko tey ministère de l'enseignement supérieur kooku jël ko tasaare ko ci université yi je pense que tey ñoom sax dinañ encourager recherche je pense que tey volet bi foofu la te mm. recherche bi buñ ko encourager mais jeunes yi ngi ñoom ñoom parewuñu lu dul loolu n'est-ce pas dinañ toog nit bu nit ñi di dem entreprise ñoom dinañ choisir dugg ci ay labo toog def seeni recherche donc je pense que tey euh, Camille lu mu wax ci jeunesse moom amul luñ ciy teg même conseil la mais lii moo koy accompagner tey lii mooy accompagner pour que jeunesse boobu mun a am courage dem jusqu'au bout voilà mm-hmm. donc et, et aussi et aussi je pense que euh, je peux rajouter naa dool leneen mooy Euh, problématique biñu ñu bi ñu bi bi ñu doon wax hmm? problématique boobu noonu euh, tey jii nii autorité yi buñ ci jàppoon euh, je pense que tey moom volet recherche moom c'est universel ku ne xam na booy seet li ngay set àdduna yëpp tey jii ñun fii les chercheurs sénégalais amuñu dara lu ñuy envier ñu nekk Europe parce que résultat yi fi ñu koy dugal ñu ñoo bokk ñooy bokk conférence yi ñooy bokk lépp ñoom ñooy proposer des fois ñun ñu critiquer dolli leen fi seen bos ñu teg ko ne dëggal li ñu wax donc je pense que des ñoom ñooy def bu ñu defee fii nii lañ koy revier accepter leen ne leen baax na bala baaxul donc en terme de recherche universalité boobu da ci da ci da ci am place léegi nag sa gox bu ñu xamul li ngay def bu bu fekkee yëguñu yow li ngay def mais euh, euh, valeur universelle scientifique ni ñi xam nañu nit ñi ku nekk lu muy jar donc et je pense que aussi c'est le moment yow tamit ñu remercier la ci genre émission yi ngay def parce que dina tax nit ñi au moins fi ñu nekk mm-hmm. ñun ñu xam euh, au moins euh, yi activités yi nekk di def. di def quoi ça moom c'est vrai ça c'est ça c'est hyper quoi et je pense que euh, li nga wax ni dama ci retenir benn affaire bu am solo c'est-à-dire tey soo ministère yi wala gouvernement bi d'une manière générale amee ay projets yu bari yoo xamante ni à travers ces ministères mën na ko génnee jox ko. Euh, université yi gars def ay recherche je me dis que ne ku def recherche ba pare bëgg nga régler problème te pour régler problème yi si c'est euh, ci domaine bi ma nekk man ci xam ko muy affaire technologie et tout ça di nga utiliser ay ingénieurs donc là ça peut régler beaucoup de problèmes ingénieurs yu bëri yi nga xamante ni tey ñu ngi nekk ci dëkk bi soxla liggéey et tout ça mën nañ leen utiliser ci euh, mën nañ leen participer ci projet yooyu nga xamante ne ci mën a liggéey après et dafay nekk intérêt Sénégal dootul nekk ay doctorat yu ñu jël rek di ranger ci tiroir ci université yi mais day nekk doctorat yoo xamante ni dañ koy def ba pare année yi dañ koy def ingénieurs yi ñëw exécuter ko donc et ça sera hyper intéressant et je pense que buñ jëmee ci Euh, voix boobu dina am solo trop alors franchement maa ngi leen remercier bu baax a baax ci li ngeen participer ci émission bii nii euh, nga xamante ni moo nekkoon dernier épisode bu ñuy def Université Assane Seck bu Ziguinchor bëggoon nañoo def nag yeneen épisode yu bëri bëri bëri bëri ak yeneen euh, nit yu bëri parce que am nañu ñu bëri ñoo xamante ni nekkoon nañ sama list bi mais comme dañoo wax dañuy def trois épisodes chaque université donc du ñàkk ne dinañ ñëwaat beneen yoon ci bi ci beneen anam nag peut-être boo xamante ni muy gën a waxtaan ci yeneen domaine toujours nag ci wàllum euh, technologie alors lan moo nekk seen mot de la fin juste avant ñu terminer Camille. sama mot de la fin ana gërëm lu. Mm-hmm. def parce que li ngay def rafet na mooy wàcc ba ci suuf xool gars yi la ñuy dund wala laajante ñoom la ñuy dund comme ça ñëpp ñu mën a yëg lu xew. Mm-hmm. par exemple boo defloon émission bi fii nii pour ñun mooy ñeneen du ñu xam par exemple ñun tudd ñu ne. exactement si si. donc tamit yow rek. jàppale te euh, bañ a bàyyi. ensuite il faut tamit ma remercier sama morom doctorant yi. Hmm. au départ joxoon naa la yeneen ay yeneen euh, euh, projet de thèse. oui ah, parce lañu waroon doon tey jii nii ci épisode bi quoi mais bon. Hmm. ba tamit maa ngi remercier tamit suñu laboo bi ak enseignant yëpp yi fa nekk mhm. di remercier auditeurs yi ñoo xam ne bàyyi nañu def dañuy dañuy déglu non maa ngi remercier madame euh, pour lépp xamal lu muy muñal parce que boo xoolee c'est pas di euh, c'est pas évident c'est trop difficile yaa ngi nii xam nga thèse affaire du métier nga nar a gérer famille bi que dama benn bébé léegi moom deux ans presque macha allah macha allah di leen di leen muñal ci yenn yi parce que léegi da ngay liggéey ba mm-hmm. sant yàlla quoi. Mm, macha allah daal quoi. et je ah, euh, ma famille parce que ñoom jàpp ci trop. si si si si chaque fois dañ may encouragé allah macha allah. alors madame nan la tudd. Euh, Constance donc ñu ngi gërëm bu baax Constance Mendy parce que euh, tey jii nii su Camille mën a ñëwee ba am état d'esprit bu mel nii ba mën a toog am dal gi ba mun a toog sax di waxtaan ak ñun je pense que tey voilà moo ko gàttee bu baax quoi donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax baax Constance d'accord. ok merci Ibrahima. <laughs> allez Sidia. Ah, xanaa di la di la gërëmaat rek comme ñu ko waxee woon sànq eh, li ngay def nii am na solo bu baax. vulgarisation bi ngay def nii nit ñi dinañ ko eh, dina dina yóbbu mbir yi fu sori waaw te yaa ngi koy defal tamit jeunesse euh, loolu moom mënuñu lu dul gërëm la ci beneen biñ ci wax tamit mu doon complément mooy problème yi comme kam yi mu ko waxee sànq nu mu met métti aussi département bi euh, ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy jàpp ñu ngi ciy jàpp ndaxte am na benn certain niveau booy toll dinañ la dugal ci enseignement bi ngay ngay dispenser euh, ay ay TD e et cetera pour que loolu aussi ay ay voilà pour que mu mun la permettre na am benn retour. voilà naam nag problème yi bëri na euh, soxla yi bëri na waane loolu tamit je pense que c'est à saluer donc euh, beneen bi aussi euh, mooy remercier n'est-ce pas suñu suñu collègue doctorant du collègue doctorant yëpp ñoom tamit je pense que ku ci nekk waroon na mën a ñëw tey à sujet yu ñu am yëpp yu intéressant tey ñoom yu yor mënoon nañ ñëw défendre ko fii mais voilà je pense que émission bi Euh, moo laajoon peut-être ah jamono bi ak xat-xatu ñeneen ñi moo tax tey euh, voilà choix bi porté woon suñu attention mais euh, ñu ngi saluer ñëpp di saluer encore une fois les enseignants ainsi que suñu encadreur yu professeur yu Faye et que ak ñëpp ñu ngi jàppale si suñu liggéey pour que mu mu mu a mu mun a aboutir. comme Camille rek ñu remercier madama ah ñu ngi remercier madame. Mhm. Euh, ci patience bi ci ci xaar bi ci ci muñal bi mhm. di di defaale un coucou aussi à notre euh, voilà à notre mhm. bébé n'est-ce pas Babacar enfant voilà de deux ans macha allah euh, tamit voilà donc vraiment ak toute la famille ah ñoom tamit ku ci nekk jàpp na ci les parents n'est-ce pas mais mais mais sama famille à ah, Ziguinchor mm-hmm. ici, n'est-ce pas, euh, tante mm-hmm. Mariam, euh, ainsi que voilà mon oncle Ibrahim et tout. voilà vraiment amuñu seen fay donc euh, mm-hmm. vraiment merci voilà pour tout ça. macha allah alors soxna si nan la tudd. waaw mu ngi tudd Nafisatou Ndiaye. Nafisatou Ndiaye ñu ngi lay remercier yow tamit bu baax a baax ndax li ñu gardeel li ñu gardeel Sidiya moom tamit ba mu ànd ak xelam ba mun a ñëw di def li yëpp tu vois donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax parce que boo nekkoon kër ga di ko di du tal <laughs> mais mais attention mais attention les bébés les bébés maa ngi leen di ñaan benn affaire. Hmm? buñ commencé xàmmee tuuti wutal leen leen ay ordinateur jàpp leen ci ñu commencé jàng algorithme. d'accord. <laughs> bu boobaa dinañ la ko jox quoi dinañ leen ko dinañ la ko paas ngeen dama si ànd ak sax Elias Waliba Elias Waliba maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit quoi. alors ak bébé Ibrahima moom tamit maa bébé euh, koy nuyu bu baax a baax moom doomam ji la tuddee sax algorithme ko daal déjà. <laughs> ah oui ah, ah, ah non mais moom xam naa xam naa man moom Java lay jël quoi man moom Java lay jël. amul benn problème. waaw lan ngeen baax a baax. Java Diago. waaw gis nga ñu koy nuyu voilà. ah xamante ne Elias je pense kon. waaw waaw waaw université bi la ne woon fii la. macha allah macha allah macha allah il est c'est un homme vraiment <laughs> exceptionnel quoi. oui si si. excellent merci <laughs> beaucoup Sidia franchement maa ngi leen remercier bu baax a baax encore une fois parce que seen disponibilité euh, ak aussi documents yi yi ngeen ma envoyé baax na non non seulement baax na si nit ñi sax mais man baax na ci man de parce que voilà culture générale bu bari laa ci am tu vois et c'est hyper euh, je pense que lii rek mooy àdduna quoi c'est-à-dire yàlla bu la mayee benn euh, xam-xam wala may la benn position donc daal nga mën a utiliser position boobu pour mën parce que kenn ku ci nekk dañ la dimbale ah Euh, ba nga jaaree école comme ni ma ko waxee léegi dañoo regrouper affaire yu bari pour que nga mën a réussir donc tey jii boo demee ba réussir aussi war nga mun a xalaat ñeneen ñi nga xam dañoo nekk ci ginnaaw bañ toujours rek di xalaat lan la nit ñi mën a def pour yow mais yow tamit xalaatal lan nga mun a def pour nit ñi ci li nga am ci li nga xam euh, ainsi de suite donc maa ngi remercier bu baax a baax comme ni ngeen ko waxee ah je pense que laboratoire ak université yi ñu ngi def benn travail bu am am solo mais euh, comme ni ko olof di waxee gaal gi gaal gi dafa bañee màññaxaan je pense que noonu lañ koy waxee donc problème yi dafa sori fi mu jógee moo sori tu waa mais lu moo tax euh, problème yu bari di am mais je pense que euh, tout ça va se régler parce que incha allah d'ici quelques années man am naa yaakaar ne euh, Sénégal dina nekk benn pôle boo xamante ni bu am solo lay doon ci wàllum technologie et ku wax technologie aussi dina wax affaire recherche donc maa ngi gërëm bu baax madame Diop xamante ni moom nekk directrice laboratoire ELI 3 euh, di gërëm bu baax aussi Youssou Dieng nga xamante ni moom tamit dalaloon nañ ko ci épisode bi passé euh, di gërëm aussi bu baax a baax a baax Ousmane Senghor bi nga xamante ni euh, moom moo ñu faciliter la collaboration bi et tout ça donc ñu ngeen di gërëm ñoom ñëpp bu baax a baax te du ñàkk nag incha allah dinañ dellusiwaat ci gën ci wax ci yeneen anam waxtaanaat ci yeneen sujet yu am solo incha allah jox dig daje beneen épisode ci beneen semaine incha allah avec yeneen euh, thèmes yu bees incha allah allez merci beaucoup ciao ciao à la semaine prochaine.